الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون jazakumullahu xayra suñu borom mu ne bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah mboolem cant yi day ñeel na yàlla faatiri samaawaati wal ard moom mi sos asamaan yi ak suuf jaa'ilil malaaikati rusula def malaaka ya ñu nekk ay yonent uli ajniha ñu nekk boroomi laaf mas naa am ñu am ñaari laaf wa sulaasa am ñu am ñetti laaf wa rubaa am ñu am ñeenti laaf yazidu fi lxalqi ma yacha doonte ne dana dolli ca mbind ga lu ko te soob inna allaha ala kulli cheyin qadir yàlla day bépp mbir mooy ko ca am kattan maa yaftaxi llahu linnaasi min rahma lépp loo xam ne yàlla ubbi na ko ñeel nit ñi ci yërmaande fala mumsika laha kenn mënu koo téye ñeel ko wa maa yumsiku lépp loo xam ne téye na ko fala mursila lahu min baadi kenn mënu koo yónni di ko wàcce gannaaw moom wa huwa al azizu al hakim mooy ki not lépp ci kattanam mooy ki nga xam ne mooy aji xereña ja yaa ayuha nnaas ay yéen nit ñi uskuru nicmatallahi aleykum fàttaliku leen xéewalu yàlla ci yéen hal min xaaliqin gayrullah ndax am na keneen kuy bind ku dul yàlla yarzuqukum min alsamaai wal ard mu leen di wërsëgal jële ci asamaan ak suuf laa ilaha illa hu kenn yeyoowul ñu koy jaamu ku dul moom fa anna tufakuun moo naka lañ leen dëppee ba ngeen di mën a jaamu leneen du dul moom mi ngi noonu bokk li mooy suratu fatir isaar boo xam ni tawxid kese la fee la feese sunu borom yàlla subhanahu wa taala ubbee ko loo xam ne ubbee na ko juróomi saar ba ca jiitu mooy fatiha ñaareel ba di an'am ñetteel ba di kahf ñeenteel bi mooy bii ñu génn nga xam ne suñu borom dane alhamdulillahi lazi lahu ma fi samawati wa ma fi l ard amma fi mu ne alhamdulillahi fatiri samawati wal ard alhamdulillah mbokk li muy firi mooy ñu xam ne mboolem cant yëpp mi ngi ñeel suñu borom jëll wa ara ñu war koo sant ci ay melokaanam sant ko ci ay jëfam sant ko ci ay dogalam jalla wa ala loolu moo tax suñu yeneen sallallahu alayhi wa sallam digal ñu bis bu ñu xëyee nañ ko wax cent soixante cinq fois téeméeri yoon ak juróom benn fukk ak juróomi yoon daañ ko wax alhamdulillah di boo jullee fajar wax ko 33 day tisbaar 33 ba baagee 33 boo ko calculer mu nekk téeméer juróom benn fukk ak juróom alhamdulillah loolu mbokk daa war a suuxat ci xolu julit ne mu yëg ne ndekete yàlla dong yooyu ñu koy sant yàlla moomu nga xam ne moo sos asamaan yi ak suuf moo ko sos saar biñ jéegal dana woon moo ko moom lahu ma samaat ma fil ardi doomu aadama mën na moom ci créé wul borom portable bi wóor na ma ne ki ko moom defaru ko xam déet mu ngi noonu suñu borom nag moo moom ca moo sos sos goo xam ne fekkewu ko fenn ibnu abbas nee na ñaari arab ñoo ma jàngal luy fat mooy fatara ndax dañoo ñëw di xëccoo ci teen waa ji ñu ne eh teen bi man maa gas teen bi kenn ki ne ko ne ibnu abbas ana fatartuha man mi maa fekkoon commencé gas saab teen ba pare mu ñëw yéggale ko ne moo ko moom yaa ngi dégg kon suñu borom moo sos asamaan ak suuf xoolewu ko fenn de un ba mu ko sosee ba tey kenn mënul sos lu ni mel am déet mais bu suba ne nga dégg gars yi attaqué ki créé portable bi LG la wala Nokia nangam am ñu dem créé portable bi mel na moom ñu dem attaqué ko tribunal am naa suñu borom moom ba mu créé xoolu ko ci kenn ci ba mu créé ba léegi kenn falsu ko yaa ngi dégg kenn falsul mbindaa fu nu yàlla abadan borom boobu nee na kon moo ko moom borom bi moo ne moo bindi malaaka yi def leen ñu nekk ay yonent mu leen di wàcce di leen jox ay téere lu mel ni Jibril di leen yónni ñuy wàcc ay mbugal ca fakasoog di leen yónni ñuy surveiller ay jaamam xam leen ne mbokk man ak yéen ñépp bi ñuy takkusaan di jot yàlla wàcceel nañu ñaari malaaka fekkoon nañ fi ñaar bañ àndee julli takkusaan ñaar yi fi yendu ñoom yéeg nañu ñaari malaaka yi ñi ngi fës yéene fanaan ak ñun ba baa fajar di jotaat di surveiller li ñuy def di ko wattu bismillah mi ngi noonu yursilu alaykum alxafaza mooy yónni ci yéen ñi leen di wattu ay kon mooy wàcce malaaka yi def leen ay yonent doonte ne fa lillahi alhamdu am na malaaka yoo xam ne seen liggéey mooy di wër suuf fan la nit ñi di daje di wax qaala allah qaala rasulullah di tudd yàlla su ko defee ñu ñëw wër leen yal na yàlla boole ci sunu jataay bi yursilul malaika ay aw jaa'ilul malaikata rusula jaa'ilul malaikati rusula malaaka yooyu seen puissance ak seeni mission ni mu wuute tax na mu ne am na ñoo xam ne ñaari laaf la ñu am comme avion am na ci ñu am ñetti laaf am na ci ñu am ñeenti laaf donte ni nii yàlla jëfandikoo ci laaf yi soo delloo suratu nisa noonu la jëfandikoo ci jabar yi te mooy su dee ne dem ngeen ba bëgg ay soxna takk leen lu leen neex mi ne nisa masna wa sulaasa wa ruba takk leen deux wala trois wala quatre lii la yàllay wax ñi xam làmmiñu arab yépp xam ne loolu lay wax donte ne yàqkat yi ñoom ñu ne yàlla nee na mën ngaa takk ba neuf femmes ndax yàlla nee na booy takk takkal deux après trois muy cinq après quatre muy neuf yaa ngi dégg am ñu gën a kan su ñoo ñu ne déedéet yàlla dane deux deux takk leen par deux deux kon da ngay takk ba yàlla nee na takk leen deux deux muy quatre wala 3 3 muy 6 plus 4 égale 10 wala 4 4 muy 19 muy 18 kon ku nekk am na droit dem ba 18 femmes donte ne ñu jël coupe bi moom mooy koo xam ne nii ci kilifa yi gën a mag ci Sénégal la bokk toog na télévision Sénégal ne waaye dama ne suñu borom nee na fankihu ma taaba lakum mina nisaa takk leen lu leen neex moo tax ñun dañuy takk di takk di takk rek gaa yi xàkkataay waaw naam bisimilah nañ takk di takk di takk rek wallaay ku ci dee boo demee yàlla takk la ala ku xaal mi ngi noonu suñu borom yàlla ala kulli xaal na ngeen gëm mbokk julit sahabatul kiram ñoom aboubacar ak omar ak ousmane ak ali ñoom ñëpp ñeenti soxna lañ yemoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn waaye tuub ne indi fukki soxna mu ne ko tànn ci ñeenti yu la neex bàyyi ñi ci des waaye julit du passé ñeenti soxna malaaka yi kon suñu borom mu ne noonu la la ëpp ci ñoom noonu lañ mel doonte ne nag yàlla mu ne may dolli ci mbind gi lu ma neex loolu tax jibril alayhi salaam yonent bi alayhi salaam nee na moom juróom benn téeméeri laaf la yor juróom benn téeméer te nee na laaf bu nekk bu ko tàllalee day dem penk ba sow sob dal ufuq mu am ci juróom benn téeméer kooku mbokk mooy ruuxul qudus bi nga xam ne am na koo xam ne bàyyam duufal na ko ba mu duuf mu wax ko répété ko ay yoon man sëñ diw bu bu diglee jibril sax bu ñëwee ma falan ko waaw jibril la ñëwagul rek daa ngi dégg donte ne ne yàlla la chaque yàlla du yónni ci moom jibril waaye yàlla dana mas a yónni ci moom benn ndongo ci ndongol jibril muy malakul mawt su boobaa na ko falan na ko jógal fii saa bàyyi daf maa sant mission na ko wax loolu rek yaa ngi dégg mbokk loolu suñuy mbir rek la waaye mbokk jibril alayhi salaam jibril da ko war a bëgg di bëgg ngeen yonent bi ci gisu leen ko day jibril mi ngi ci kaw asamaan yi dañ ko war a bëgg dañoo war a bëgg mikaayil qul man kaana aduwan lillahi wa malaikatihi wa jibril wa mikaal fa inna allaha aduwun lil kafirin yàlla mu ne ku noonu jibril sama noon nga te yahud yi bon yi dañ doon wax ne jibril mooy sunu noon parce que moom mbugal yi lay indi ila axiri mu ne ko noonu jibril suma noonu la ku noonu mikael sama noonu la ko ñun naka noonu ku bëgg jibril bëgg mikael bëgg koo dégg ci turu malaaka yi israfil la na doon malakul mawt la na doon malik bay garde sawara la na doon kasa wa kasa loolu julli da leen a war a bëgg loolu mi ngi noonu respecté leen màggal leen borom boobu subhanahu wa taala kon mu ne mooy dolli ci bind gi lu ko neex ay ñii am na ñett ñeent am na ñu am juróom fukk am ñoom téeméer am ñu am nangam ba seen kilifa gi gën a mag jibril moom am na juróom benn téeméer yi laaf loolu it la yàlla wax ci ci ci lay dox ci kaw suuf minhum man yamshi ala rijlayni minhum man yamshi ala arba ah sun borom teg ci ne yaxluqullah ma yasha ay mi ngi noonu borom boobu subhanahu wa taala nag ne mooy ki nga xam ne lépp am na ci kattan loolu tax ab jaam war koo doyloo mu nekk boromam mu sukkandiku ci moom xam ne yow su dund àdduna gi aka bari loo tële waaye sa borom yàlla moom dara tawu ko moo tax mu ne lépp loo xam ne ubbil na ko nit ñi ci yërmande kenn mënu koo fekk mbokk lu yàlla namm ci yow ci xéewal kenn mënu koo fekk mu ne it lu yàlla nammul jox la kenn mënu la koo jox su ko defee yow mi am xel kon ndax da nga yaakaar keneen ko dul yàlla ibnu abbas yeneen ci bi alayhi salaam nee na ko ay sama xale bi déglul gis nga adduna yëpp bu doon dañoo daje ngiree tey bëgg laa jëriñ ci benn mbir duñ la jëriñ lu dul li yàlla dogal ci yow buñ daje woon bëgg laa lor ci benn mbir duñ la lor lu dul li yàlla dogal ci yow loolu moo tax jullit fu mu mën a toll day ñaan yàlla ubbil ko masalan tey bi ngay dugg ci jàkka ji da ngay naan bismillah wa salaatu wa salaam ala rasulillah rabbi xfir li zanbi waftah li abwaaba rahmati yàlla yàlla nag ma ubbil sa bunti yërmande yi booy génn nga ne waftah li ab nga wax la nga waxoon ne yàlla iftah li abwaaba fadlik yàlla yàlla na mu ubbil sa bunti ngëneel yi su dee mënagoo ñaan bi ci arab fexeel heure bay dugg jàkka waxal bismillah jullit yëpp mën nañ ko jullit ci yonent bi alayhi salaam jullit yëpp mën nañ ko jéggulul sa borom wax astafurlah jullit ñam mën nañ ko gannaaw ba nga ne yàlla yàlla nag mu ubbil sa bunti yërmande yi mi ngi noonu yàlla yàlla nag mu ubbil sa bunti yërmande yi booy génn nga wax bismillah nga ne yàlla yàlla nag mu ubbil sa bunti ngëneel yi ndax li yàlla ubbi dong mooy lay ubbeeku lu yàlla tëj tëj mun koo ubbi borom boobu nag subhanahu wa taala dañuy gis ne pas-pas la boo xam ne ku ko gëm dëgg-dëgg ci yàlla da ngay libre da ngay nekk ku gore dootoo toroxlul kenn dootoo yaakaar kenn sa lépp da nga koy delloo yàlla jalla wa ala borom boobu nga xam ne neen mooy al aziz al aziz mooy ki nga xam ne huwa ala kulli shay'in qadir mooy ki not lépp mooy al aziz ki man lépp ki tëliwul dara donte ne mooy al hakim lu nekk it xam na fa mu war a tege mu teg ko fa dara rëcc ko jalla wa ala gannaaw ba ca la woo nit ñi ni ay yéen nit ñi day leen fàttaliku xiiwalu yàlla ci yéen day leen fàttaliku xiiwalu yàlla ci yéen borom bi commencé wax ñu ci lenn ne hal min xaaliqin xayrullah doomu aadama del fàttaliku xiiwalu yàlla del commencé sa bopp ndax am na ko bind ko dul yàlla déedéet kon ku ma may noppi yi may déggee yàlla kan moo ma ko wattul ba ma juddoo ba tey maa ngi dégg yàlla ku ma may bët yi may xoole yàlla ku ma ko wattul ba ma juddoo ba tey maa ngi xool ku ma may sama loxo yi may manipuler ku ma may tànk yi may doxee kan moo ma may xel ma may xalaatee kan moo ma may sama biir bii di defar sama lépp muy yàlla nga passé sa bopp commencé nag ku ma may ngelaw bi may noyyi ku ma may ndox mi ku ma talalal suuf si ku ma taalal jant bi ku ma taalal weer bi ku ma nangam ku ma màngam xéewalu yàlla ba mu ne tudd leen ko gannaaw ba nag sunu borom yàlla ne wa in tauddu ni'matallahi la tuhsuha tous les scientifiques du monde buñ daje woon ak tous les ordinateurs ñuy bëgg a noter xéewalu yàlla sunu borom mënu mënu leen koo jeexal ñu ngi noonu ndax la ngeen ca xam la ngeen ca xamul sax mu ko ëpp gis ngeen waaye quand même dee ko tudd di sant yàlla jalla wa ala ci xéewalam su ko defee loolu day tax yàlla dolli xéewal yi donte ne am na ay jaami yàlla yu yàlla nattoo fuñ toll ñi ngi jàmbat yàlla may na leen lu ne ñi ngee ki kër ñi ngee ki oto subhanallah waaye fuñ toll ñi ngi jàmbat waaye doomu aadama wallahi boo demoon tey ji hôpital loo mën a nekkee da ngay gis ne am na benn waay bu fa tëdd mi ngi bàyyi alal joo xam ne nii su mënoon a joxe alalam yépp ca jóg am wér-gu-yaram gi nga am wallahi day fanaane sant yàlla su ko defee kon nañ sant yàlla ci xéewal yi sant yàlla ci wér gi sant yàlla ci jàmm ji yéen waa Sénégal yéen a ngi xëy dem seen xel tranquille yéen a ngi bàyyi seen njaboot ci kër ga tey xoolal li xew Syrie xoolal li xew Libye xoolal li xew fu nekk bomb yi dal guddi ak bëccëg jaxasoo gi am kon loolu yàlla defal la nañ ci sant yàlla waaye malheureusement lan mooy feeñ ci suñu nit ñi jërëjëf sëñ diw jërëjëf sëñ diw ñun niñ ci jaam yi ñooy sant yàlla lii mbokk da ngay gis lu lu metti la uskuru ni'matallah fàttaliku leen xéewul yàlla ndax am na kuy bind déedéet ndax am na kuy wërsëgal déedéet kan mooy wàcce dox kaw asamaan kan mooy meññital suuf yarzuqukum min as-samaa'i wal ard sunu borom yàlla mu ne laa ilaha illa hu kooku mooy ki nga xam ne kenn yu yoowul ñu koy jaamu ku dul moom borom boobu subhanahu wa taala mu ne mooy yéen fa anna tufakun ana naka lañu wëlbatee seen xel yi ba ngeen jublu ci loo xam ne amulu leen njëriñ amulu leen lor loolu di ak ndof la gën a nekkuk ndof nag ngeen dummooyu ka nga xam ne seen njëriñu àdduna ak àllaaxira lépp ci loxoom la nekk loolee mbokk da ngay gis ne mooy réer gënu ko mën a passé yàlla miy gindi ay jaamam yàlla na yàlla gindi ñu yàlla na yàlla mottali ay xéewalam ci ñun yàlla nañu ubbil bunti yërmaaneem ak bunti ngëneelam àdduna ak alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain ndax imam bi day jàng ñi ñu yor seen portable ndax loolu sunna la wala ah non loolu loolu loolu dañ ne mën naa nekk du ñu wax boo nee sunna la mooy lu sunna dégle dañ naan ndax mën naa nekk ak mënta nekk ah kay mën naa nekk imam bi ci boppam sax mën naa jël kaamil jiite nit ñi kon ñun ñu nekk ci gannaawam bëgg a jàng alquran su dee imam bi leen jiite day jàng alquran normalement ñu jël seen kaamil pour bëgg a jàng alquran loolee dara nekku ci mi ngi noonu allah subhanahu wa taala alam naam waaw bismillah naam ah mu ne luye ah luye tool waaw luye tool dagan na luye tool dagan na li ci yonent bi alayhi salaam daan tere rek ci li ñu daan tudde mu xaqala mooy da nga daan gis ku daan xam toolam xam ne place bi moom mooy gën a ñor mooy gën a baax am mbay rawatina fi teen yi nekk su ko defee ñu ñëw gis ab surga na ko waaw dañuy dama lay luye sama tool léegi nag lii ñor ci diggante bi nga may fay bu ko defee waa ji bu bàyyee ba pare lii ñor foofu mooy la gën ci tool bi loolee moom da ngay gis islam da koo tere mais bu dee luye bi dañ koo luye ci lu leer xaalis nga may fay wala dugub nga may fay ñu wax ko ci lu leer au départ loolee dara nekku ci wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw
ñi nga xamante ne ñoom la fekk ñu ñaar laaj la góor ñu pare dañu biiral.
waaw bu dee dañoo tardé.
waaw.
bu dee da ngaa ñëw ci jàkka ji fekk imaam julli na ñaari rakka ba pare géey bu mu paree ngay fay yow doo nekk di biralaat biral boo xam ne da nga koy digal waa jàkka ji li ngay wax da nga koy wax nank rek loo xam ne mën na am ku sosoon ak yow mbagg moom mën na koo dégg. waaye du looy biral boo xam ne jàkka jëpp dañ koy dégg bu doon tene ne beneen place la budul jàkka nag nga xam ne moom xëy na kenn nga fekkoon muy julli mu rawale ñaari rakka bi nga jógee moom mën ngaa biral mais daal alxuraan liñ ciy bañ mooy kii di biral kii di biral mbir mu jaxasoo ca loolu it xëy na daan ci ñaaxaan mbokk yi léeg-léeg mbokk yi nekk fi di itikaaf yal na yàlla nangul leen alxuraan bi fi jàng yàlla yàlla nangul leen waaye it ñu bàyyi xel bu ñuy jàng alxuraan ñu koy jéem a yemele ci seen bopp parce que bu dee ni am na ñoo xam ne ñi ngi nelaw ñeneen ñi ngi bëgg a jàng yow ngay nekk jël sa téere di jàng ba ñu nekk ca mbedd mi di la dégg loolu day jur perturbation tuyaa bari nga bëgg jàngal mën ngaa yëkkati nànk sa baat ba xëy na ñaar ñi sës ak yow mën nañ laa dégg mais jarul nag di yëkkati sa baat ba kuur ba di la dégg nga perturbe ñeneen ñi jàng perturbe ñuy nelaw mi ngi noonu wallahu alam ah bismillah waaw kii dem bitim réew yàgg fa te dafay war a nibbisi ndax mën nañ ko considérer musaafir la nga xam ne daal moom la ñu tànn ñun ci li gën a digg doomu mooy bépp tukki boo xam ne dañ koy tukki te bi nga demee doo fa passé ñeenti fan su boobaa mën ngaa wàññi say julli mais beneen tukki boo xam ne day passé loolu loolee da ngay gis ne da ngay matal say julli ba mu des tukki boo xam ne yow am na luy lijjanti naan su paree tey ma de tey bu pare woon tey ma dem bu pare suba ma dem suba ba même bi diire woon vingt jours it mën ngay wàññi sa julli mais bu dee wóor na la ñëw naa pour toog comme masalan xale bi dem pour jàngi wóor na la ne ñëw naa année scolaire bi yépp fii laa nar a toog ku mel noonu lañ koy sant mooy na matal ay julleem bu koor jotee na woor wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaw bismillah bu dee nekk ne li nga ñaar ñi mooy ñan nga ne non la la la la la chaque mbokk yooyu ay wax la sun mag ñi ñoo daan bañ nit ñi njaaloo moo tax ñu naan doomi njaaloo kasa doomi njaaloo kasa waaye mbokk doomi njaaloo doomi nit ñépp a yem sun yonente alayhi salaatu wasalaam nee na laysa ala waladi zina min wisri abawayhi shay'a shay'un dara ñeelu ko ci moom nit la ko juddu deful benn fët kon moom nit ñëpp a yem bu jaamoo yàlla kenn du ko jiitu ajjana wax yi ñu ciy wax yépp loolu ay wax la pour décourager nit ñi ci jaaloo waaye du tegtal bu jóge ci yàlla wala jóge ci yonent yàlla mi ngi noonu wallahu alam naam bismillah waaw waaleykum salaam wa rahmatullah da nga koo def benn benn laaj rek comme mas kii ñëw parce que suñu heure bi ñu war a arrêté sax pare na seetal bi ci gën a intéressant rek waaw waaw waaw ala ala kulli xaal ala kulli xaal mbokk julit siyaa yi moom la ñuy wax jarul toppatoo bala ñoo wax naan bala ñoo dem màkk nañ seen imam la ñu wax moo gën a garaaw loolu koo xam ne ne nga alquran bii nga yor du alquran alquran dëgg dëgg du lii koo xam ne nee na aboubacar ko omar yéeféer la koo xam ne nee na seen imam bi ay masum lañu ñoo gën a kawe sax yonent yi ila axiri ñooñu moom mbir lay woo xam ne ak cànkute la li nga xam ne mooy natt bu rëy bi ñu yàlla nattu rek ñi ngeeg ab rajo buy émettre nit ñu bëri leen xamuñu dañ leen di déglu liñ ci man rek mooy ñaan yàlla musal ñu ci seen ay waaye chia moom ay mbiram moom mënoo toog di ko lijjanti fii ndax sunu diggante ak seen diggante teqalikoo ko fa mu jógee dafa yàgg lool ba la ñuy mën a dajale day doon lu jafe wallahu alam ñu mujj ci mbokk bi rek bismillah waaw waa ji dafa rey nit war a génne kafaara bu dee nit ñi bëri la rey nag bu dee nit ñi bëri la rey it ñoom ñépp la war a kafaara doonte ne kafaara rey nit boo ko tayul dañ koy teg ci li ñu tudd aqila mooy say mbokk donte ni ne léegi famille yi tasaaroo nañu nit ñi sax xamatuñ lii famille far waaye bu doon islaam boo dee ne loolu am na dañuy xool ña nga xamee ni ni ñooy mbokk jege ñaaleem ñi bokkal géño ñëpp ay bokkal ay doomi bàyyam ñëpp képp koo xam ne majeur na ci am na alal ñu xool leen ñaata lañ toll seet nu ñuy séddale kafaara bi seen diggante parce que waa ji dafa waroon joxe téeméeri gileem naka noonu itamit bu dee na mbooloo la rey xam ngeen ne dana jafee ci jamono yonent bi sax nit ñi daan rey comme nit ñi rey nii tey waaye même bu dee mbooloo la rey ku nekk ci ñoom yoral na ko kafaara allahuma kafaara boobu nag suñu borom yàlla tënku ko ci ne fokk da koo war a doon lu muy génneel lu dul ne ñoom mbokk yi ñoo ko laaj suñ ko balee da ngay gis ne bala nañ ko loolu mu jëm ci wàllu alal ja mu des ci wàllu waa ji nga xamee ni nii dafay war a goreel li nga xam ne mooy ab jaam su dee am na jaam bu muy goreel Sénégal xaw ma fi jaam yi mel noonu boo xam ne dañ koy goreel mu dem su dee am na xëy mu goreel ko mu dem su dee ne amu ko su boobaa day woor ñaari weer yu tegaloo bu doon te ne dafa rayoon tey juróomi nit it su boobaa nit ku nekk dana ko utal ñaari weer yu tegaloo yu muy woor duñ ne dafay tegale fukki weer yépp waaye dana wooral ma sàmba ñaari weer wooral ma dem ñaari weer wooral ma kii ñaari weer comme ni ko yàlla subhanahu wa taala waxe loolu mbokk comme ni ngeen ko waxee sanction la bu métti waaye suñu borom mi ngi ci jublu nit ñi def attention ba bañ a rey nit ca tayoo ko parce que loo xalaat xalaat sanction bi métti na xoolal ko ñàkk bakkanam moom moom su suñoon dund dund sanction bi ngay dund am déet loolu kon mu ngi noonu kon lu sanction bi métti métti ci yow soo xalaatee ka faat bakkanam mbir mi day daal di woyof ci yow yal na yàlla may ñu ñu nangu ay dogalam yal na yàlla sàmm ñu ci lépp lu ñuy yàqal adduna ak alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad